asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm Barthélémy Dias su fekkente ne nag am na ay daan yu teg ci noddam mun na am ñu daal di koy jëlee ca poste maire ba nga xam ne ba ñu ko fa tegee yàggul loolu la colikaay bii di Sud Quotidien daal di xëyee tey ndaxte suñu naataango yi daal di nañ ci jokkoo ak kenn koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu droit pénal mu daal di xam ne su fekkente ne chambre correctionnelle bu cour d'appel daal di nay t kàddu yi nga xam ne moom la procureur général daal di fësal loolu kon dina firndeel ne kii di Barthélémy Dias moom dootul nekk ci maire Ndakaaru culikaay bii di Sud Quotidien di laajte kon ndax Barthélemy appel ga mu def jëmale ko ci wàllu procès googu ndax loolu sax jaroon na ko ndaxte mel ni ne su fekkente ne ñii nga xam ne ñoom ñooy tribunal bi topp nañu euh, procureur général dina am daan yu métti yoo xam ne dinañu ko teg ci ndoddam te loolu lu muy mujjee nag moom mooy ne dañu koy dindi te euh, post maire ga ñu ko tegoon ndaxte li ni mel xewoon na ak Khalifa Sall ndaxte kii nga xam ne moom mooy Macky Sall moom ci boppam moom moo daal di fësal ab décret boo xam ne dañu koy jëlee ca poste maire bi te it su fekkente ne it kii di Barthélémy Diaz moom it am na ay daan yoo xam ne teg nañu ko ci ndoddam mën na am loolu moom moo ko ci nar a fekk ñu des ak njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ndaxte julikaay bii di tribune moom mooy laajte moom moom di Macky lan lay xaar ngir daal di tab njëriñ gu njëkk ndaxte ba mu ko fi waxee ba léegi defu ci lenn rax ci dolli fii nga xam ne moom mooy ci biir ministère yi liggéey amatu fa ndaxte ñoom bés bu yàlla sàkk dañuy foog ne bés boobu nag la ñuy indi ay coppite jëmale ko ci wàllu gouvernement bi na ci

dénk wàllu affaires étrangères mer na mer na ba futt jëmale ko nag ci kii nga xam ne de moom mooy ambassadeur bu Ukraine fii ci biir réew mi ndaxte tàgguwuñu ko nag ba ñuy def ni mel loolu sax moo tax ba critique du ñu xamal ne maître Aïssata Tall Sall moom daal di nay wax ambassadeur bu Ukraine fii ci biir Sénégal ngir mu daal di dakkal li ni mel ci nu mu gën a gaawee ndaxte bokkul ak li nga xam ne xaatim nañu ko te mu jublu ci wàllu diplomatie ñu daal di wax ci xëyu ndaw yi rawatina nag ndaw yi nga xam ne dañoo bëgg dem ca bitim réew jaarale ko ci gaalu wàllu looco yeeg ak ci yeneen yoon wala it ñi nga xam ne ñu nga woon ca bitim réew wante dañoo bëgg a dellu si waat fii ci mim réew colikaay bi di la mandat moo ñuy xamal ne direction de l'emploi moom dina xaatim yenn ci ay contrat de partenariat ngir fexe ba mu am ci lu tollook ñetti junni ndaw yoo xam ne dinañu leen mën a jox ay xëy waa ARMP dañoo daal di gantal ab marché goo xam ne waa ANER dañ koo bëggoon a amal marché googu nag lañ ca bëggoon moom mooy fexe ba daal di samp ay lampadaire yu Kédougou Kolda Sédhiou Saint-Louis ak tamit Matam ñii di waa ANER di xamle ne marché googu par entente directe lañ ko mën a defee ndax soxla gu jàmp rax ci dolli bëgg nañu jàppale gox yooyu ci yenn ci ay ñaawteef yoo xam ne ñàkkum kaaraange ak tamit ñàkkum kaaraange ma leen koy indil wante waa ARMP ñoom la ñu gis moom mooy ne marché bi ni mel daal jarul ñu koy def par entente directe loolu moom moo tax ñu daal di ciy teg seen tànk li ko dalee tey jàpp suba li nga xam ne moom mooy Coyof Cambérène Ngor dinañu njaboote Seydina Limaamu Laay ojolikaay bi di la Soleil di xamal ne foof nga xam ne moom mooy ca Yoof zikr yi ña ngay jolli te it démb la ñu daal di ubbi euh, pont bi nga xam ne moom moo nekk ca Cambérène li ni mel sax nekkoon ab dige goo xam ne nguurub Sénégal daf leen ko digoon mu daal di koy amal te na mu ko waxee ojolikaay bi di la ne pont boobu ñu ubbi nag dina rataxal dem ak dikk bi foofu nga xam ne moom mooy ca Yoof tey ji ojolikaay bi di l'Observateur daal di def ab gëstu yaatu jëmale ko ci wàllu yelwaan yelwaan léegi liggéey la fi ci mim réew loolu sax tax na ba nit ñu bëri yoo xam ne ñu ngi ci dëkk yu ñu wër léegi dañuy ñëw ba fii sax di fi yelwaan autolikaay bi di l'observateur di ñu xamal ne ci ab gëstu goo xam ne benn kuréel gu bàyyeekoo ca ONU daal dina koy def jëmale ko ci wàll gi ni mel gis nañu nag ne at bu jot yelwaan bi daal ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def dinañ ci am koppar gu weesu juróomi milliards jeexale ko autolikaay bi di kakatar ma ngay ñëwaat nag ci xew-xew yi nga xam ne moom moo amoon ci weeru mars bu atum 2021 tey jii benn at ba xew-xew yooyu amee ba mu am ci lu tolloo fukk ak ñeenti nit yoo xam ne ñàkk nañ nañ ci seen bakken ba léegi nag amul procès ba léegi kenn xamul fan la wan nañ ci di mu jekki gëtëm uculikaay bii di kakatar di ñu xamal ne jot na nag ngir suñu justice indi ay leeral jëmale ko ci wàll gi ONG yi nga xam ne ñoom ñooy saytu àq ak yelleefu doomu aadama yi ñoom it justice lañuy laaj tey ji sax ci àjjuma ji waa M2D fas yéene fàttaliku ñii nga xam ne ñoom ñoo génn àddina ci xew-xew yooyu fas yéene leen defar ay ñaan ngir suuf sedd ci seen kaw lii moo nekkoon box di lukat yi li gën a fës ci biir uculikaay yi ñu leen di ñaanaan njeextilu bés ak jàmm Mesdames et messieurs, bonjour. Barthélémy Diaz, le nouveau maire de Dakar, pourrait perdre ses fonctions dans les tout prochains jours à cause de sa décision d'interjeter appel de sa condamnation en première instance dans le cadre de l'affaire Ndiaga Nos confrères de Sud Quotidien ont interpellé un consultant spécialiste du droit pénal et ce dernier a indiqué qu'une décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel dans le sens du réquisitoire confrères de Sud Quotidien se demandent si Barthélémy Diaz, en voulant laver son honneur dans l'affaire Ndiaga ne s'est pas tiré une balle dans le pied en interjetant appel de sa condamnation en première instance. Car en cas d'une décision dans le sens du réquisitoire du procureur général, le tout nouveau maire de Dakar pourrait tout perdre, comme ce fut le cas avec Khalifa Sall. Et poursuivant son propos, le consultant spécialiste d'ajouter que quand le tribunal Et en cas d'une condamnation à cinq ans, le président va prendre un décret pour le révoquer de ses fonctions de maire de Dakar. Nous restons justement avec le président de la République car dans le journal Tribune, nos confrères écrivent que tout le Sénégal est en attente d'un nouveau gouvernement. Mais jusqu'à présent, c'est le surplace au sommet de l'État. En tout cas, c'est la longue attente dans les ministères qui considèrent chaque jour comme le J. pays. C'est le chargé d'affaires de l'Ukraine au Sénégal qui l'a révélé et nos confrères du journal Réumi Quotidien qui nous en parlent écrivent que ces jeunes veulent répondre à la demande de soutien du président Zelensky à la communauté internationale suite à l'invasion russe. Le diplomate signale qu'ils ont reçu candidats de la part des Sénégalais, ce qu'ils trouvent agréable et positif. Mais dans le journal critique, nos confrères nous font savoir que a ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, condamnant fermement cette pratique de recrutement qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. Aïssata Tall recadre l'ambassadeur d'Ukraine, titre nos confrères du journal Critique et Réumi Quotidien d'ajouter que le chargé d'affaires Yuri Povarov est d'ailleurs convoqué. Parlons Cameroun ou bien de ces euh, Sénégalais qui sont de retour au bercail. 3000 d'entre eux vont bénéficier d'un emploi. Ceci grâce au programme Xëyu Ndaw yi. Nos confrères du journal Le Mandat qui nous en parlent écrivent que la direction de l'emploi multiplie les initiatives pour intégrer les jeunes migrants de retour. Plusieurs secteurs peuvent offrir des emplois décents aux jeunes en quête d'opportunités et d'emplois et c'est ainsi que la direction générale d'appui aux Sénégalais a paraphé un contrat de partenariat la direction de l'emploi faciliter l'insertion professionnelle de 3000 jeunes migrants de retour au pays. La RMP freine l'ANER. C'est concernant cette passation de marché par entente directe. L'info nous indique que l'ANER voulait passer par entente directe avec les entreprises Sen Technology Power, ERT, Sen Eco, les marchés relatifs à la fourniture et à l'installation de 160 000 lampadaires solaires dans les régions de Kaolack, Fatick, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Saint-Louis et Matam. Et pour justifier directe. L'ANER soutient que les régions périphériques et du centre, du fait de leur faible taux d'électrification rurale, sont confrontées à des agressions, des vols, vols de bétail et à des manifestations parfois violentes avec des dommages collatéraux importants qui troublent l'ordre public. Cependant, l'ARMP trouve que les motifs évoqués ne répondent pas aux exigences de l'article b du Code des marchés publics. La communauté laïenne célèbre à partir prières en l'honneur de Seydina Limamou et sa descendance retentissent de partout à Yoff, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil. Et depuis hier, le pont de Cambérène est ouvert à la circulation. Chauffeurs et population se réjouissent de cette infrastructure qui va contribuer à la réduction des accidents et à la fluidité du trafic dans cette zone jadis compliquée. Ainsi, l'État du Sénégal a respecté son engagement d'ouvrir le pont avant l'appel des Layennes reportage sur la mendicité qui devient une sinécure et attire davantage d'adeptes. En effet, plusieurs centaines d'étrangers ont envahi les ruelles de Dakar dans l'espoir de trouver l'aumône pour se prendre en charge et selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les mendiants reçoivent milliards de francs CFA par an. Terminons par nos confrères de Kakatar qui reviennent sur l'affaire Suite Boti un an après. Selon nos confrères, victimes de faire leur deuil, mais aussi euh, pour que la vérité éclate sur l'accusation à l'origine de la furie populaire qui a ensanglanté le Sénégal en mars de l'année dernière. Le procès doit se tenir. La justice doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur les événements violents ayant coûté 14 vies puisque le dossier reste en l'état malgré les plaintes et complaintes des citoyens qui revendiquent la même dignité devant la justice. C'est tout à vos journaux